mbokki Sénégal asalaamualeykum man seen soppe seen xarit euh, seen doom seen frère seen sœur Ousmane Sonko may def vidéo bu gàtt bi rek pour euh, waxtaan ak yéen saafonte ak yéen euh, yee salaat sama nammeel ci yéen xam naa ni nu nu ko raw ngeen ñu nammee fas yéene ci lu gàtt rek am lu ñu ubbi ci ay tomb ci waxtaan ak yéen waaye di ko doore ci félicité encore une fois suñu gaynde yi suñu équipe nationale football bi ci bégal gi ñu bégalaat démb gannaaw bi ñu ko defee ñaari weer ci gannaaw ci Coupe d'Afrique bi mooy qualification bi nga xam ne mooy ñetteel ci lu nu mel euh, ñu war a dem fi àdduna yëpp di daje wala li ci gën a fës ci wàllu football loolu ndam gu rëy la ci Sénégal gàcce ngàllaama di féliciter joueurs yëpp di leen encourager waaye di leen wax ni Sénégal kontaan nañu ci yéen di féliciter it staff bi ñi leen encadré waaye di tirer benn jàngat bu am solo mooy ñun Sénégalais bis bu ñu booloo nekk benn rek soo xoolee équipe bi moo munoo ci xam kuy Casamance wala kuy waa jurbel wala kuy waa Matam wala kuy waa Ndar wala kuy wax Saalum di entraîneur bi ba ci footballeur bi gën a jeex loolu mooy Sénégal loolu lañ ñu bëgg a xañ nag ci at yi yëpp weesu te dara waralu ko lu dul politique waaye bu Sénégal yëpp daje amul waaso amul fii laa dëkk ñu bokk jëmukaay am gëm-gëm amul lu ñu të kon loolu jàngat la gu rëy waaye di félicité it supporters yi supporters yi kontaan nañ ci seen taxawaay mbir mi noonu la fi ngeen ko jàpp foofu la ndax fulla fayda ak jom mooy jox nit li mu war a am te wane ngeen ko dem ba mat sëkk yéen ak l'homme di match mbokk yi gannaaw loolu euh, dëkk bi yëngatuwaat na en ñaar ñetti fan yi weesu yëngatu ci wàllu wax ak ci wàllu communication te li ko andi mooy li ñu rëccal mu law ci dëkk bi yëpp ak bitim réew ni ñoo ngi waaj a teg loxo ci Ousmane Sonko bi coow loolu amee ba léegi gis nañ seen taxawaay gis nañ seen dogu yéen waa askan wi rawatina ne yow ndaw mi gis nañ ngeen fe feddaliwaat seen yéene ci ñun ndax bëri na ñoo xam ne jàppoon nañ ni li ngeen wane woon ci jamono mois de mars te ñuy ñaan yàlla bu mu fi mës a amati loolu ne nekkatu fi ba ñu yaakaar ni war mën nañu delluwaat ci la nekkoon ci ay tappale waaye li ngeen jot a fësal wane na ni tey la mbir mi gën a foor ba leen di gërëm di leen sant di leen wax ni nag kóolute góog ngeen am ci ñun du jëmm Ousmane Sonko ndax amul solo ndax gënuma fi kenn judd ëpp ma fi kenn alal wax dëgg yàlla foo natt rek nit laa de dong ni yéen gënuma fi kenn waxuma nag ni nit ñi ñoom ma gënit waaye du jëmm Ousmane Sonko juróom benni at juróom ñaari at yi nga xam ne taxaw nañ ko ci ci ci ci ci géewu politique bi lañ leen andil ci wax ak ci jëf ci gis-gis ak ci yéene lañ leen andil ci yéene gi ñu am xeex ba nooteel gi nga xam ne ñu ngi koy dund ay siècle ba tey ji jóge fi ba alal réew mi ñuy randal jóge fi ba dërëmu réew mi dellu si ci askan wi ba suufas réew mi nga xam ne ñu ngi koy jaay loolu dakk ba ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi koy seddoo di ko pàccoo te Sénégal amu ci dara dakk yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu andi te woon leen ci dogo gu mat sëkk loolu moo tax ngeen ñi xeex waaye du jëmm Ousmane Sonko loolu nag nañ ko indee démb ak ba barki dem tey lañ ci gën a am dogu ñu leen di gërëm ci confiance boobu di leen feddiliwaat ni confiance boobu bu soobee yàlla fii leeg bakkan yàlla ñu koy bàyyil du ngeen toog ba ne am nañ ci déception waaye mu am lu ama am solo mooy lu andiwaat coow li mooy nee nañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko moom ci boppam def na émission ne leen si ñëwuma am na nag lenn ci Sénégal yi essayé lenn ay nit yu essayé nërmal xelu Sénégal yi naan leen dafa respecté wul institution yi moo tax mu bañ a signé ma fàttali ni gis nga institution du ab nit boo mën a téye du ab garab goo mën a laal du ab bâtiment boo mën a teg sa loxo institution benn entité bu abstraite la benn mbir la benn jëmm la joo xam ne jëmmoowul ci lu ñu mën a laal waaye la koy jëmmal ñaar la muy yu am solo bu ca njëkk mooy charte yi nga xam ne moom la réew mi tëral ne institution bi ci charte yi la war a doxee ñaareel bi ko jëmmal mooy nit ñi nga xam ne teg nañ leen fa ne leen yéen a war a doxal institution bi waaye dañ koy teg ci kaw charte yi nga xam ne ay loi la ak ay règlement yu ñu wote ba teg ko bu ñu demee nag ba nit ña war a jëmmal élection euh, institution yooyu ñoom ñooy njëkk a joggati institution yooyu dafay laaj ku ko mën ku ko mën wala ku ko sañ nga taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen li ngeen di def tegut yoon looloo andi situation bi ngeen gis ndax ñaata yoon la institution bi jalgati samay àq ak samay yelleef ma fàttali leen ci lu gàtt débat bi sax bëgguma ñu teg ko ci ka ci waxu institution parce que man gëm naa ni li ëpp ci magistrat yi ñu jub lañu ñu dëggu lañ ñu bëgg a def seen liggéey lañu gëm naa ni foo dem di nga fa fekk lu baax di nga fa fekk lu yées di nga fa fekk lu tane kon buñ ko tuddee institution judiciaire dama ne magistrat yi nga xam ne seen loxo jot naa dugg ci dossier bi mu dooree ba léegi nañ ko doxalee teguwul ci yoon ma fàttali leen ni bañ may njëkk a convoqué fekk man may député am immunité parlementaire dama leen di fàttali rek parce que sénégalais léeg dañuy gaaw a fàtte te ñoom dañoo yor seen communication boo xam ne dañuy essayer nërmal xelu nit ñi ma fàttali bi ñu may njëkk a convoqué maa ngi yor immunité parlementaire mooy bañ ma falee député ba pare askan wi moo ne député jox nañ ko kiiraay goo xam ne balaa nga koy convoqué il faut mu jaar fii ak fii ak fii procureur jalgati yooyu yëpp ne waa section de recherche convoqué leen Ousmane sonk bu bañee ñëw dem leen jëli loolu benn ci jalgati samay àq la ma leen ne du ñëw fileeg jaaru leen fi ngeen war a jaar yéen yëpp yéen a teew le huit janvier le huit février ba ñuy yónni seeni alkaati ñu ñëw sama kër ba xeex bu métti am fa ñaareel bi ñu ne dañuy yëkkati sama malaanu kiiraay waaye jaara nañ ko ci anam goo xam ne kenn musul gis ci lu toll ci ñetti wala ñeenti fan ñu ne def nañu procédure bi yëpp assemblée nationale bi ko levé assemblée nationale bi yëkkati sama malaanu kiiraay position bi dafa irrégulière ndax benn waa opposition toogu fa waaye comme ñoom gisuñu woon lu dul luy tëj Ousmane Sonko nañuy def ba jàpp Ousmane Sonko tëj ko ñu jalgati règle yépp ci njiitalu Moustapha Niasse ñu ne teggi nañ sama mbalaanu kiiraay loolu di ñaar ci jalgati biñ ko jalgati gannaaw ga bañ ma convoqué ma jóg di dem tribunal ñu ne ma ñoom ñoo may tànnal fan laay jaar par force citoyen bu jog yow kay soo convoqué nit toogal rek xaar ko nee nga ko 9 su ñëwul 9h nga ne ñëwul waaye dinaa la convoqué waaye fii ngay jaaree par force may leen du ma jaaree foofu ndax lañ fa tegoon ci ay piège ñëpp xam nañ ko ne leen fu ma neex laay jaare ñu jaay ma doole jàpp ma keroog gis ngeen li xew rond point Jet d'eau jàpp ma tée ma juróom fan ci loo xam ne jaay doole la tegul ci yoon bu dut woon yéen waa askan bi bu dul woon yéen waa askan wi justice boobu moo doon doon braawu pouvoir bi braawu nguur gi mooy doon loxo nguur gi pour ñu sàkkal ma pexe tëj ma ci ay caaxaan yoo xam ne tegul ci yoon muy beneen boo xam ne am na fi noonu lañ ma jàppee di may yee ay quatre heures matin forcé ma dugal ma seeni oto yóbbu ma tribunal indiwaat ma yeewaat ma quatre heures matin ci loo xam amu ci benn boo xam ne respecté na procédure loolu yëpp ñu dund ko fi balaa loolu am yéen ñëpp gis ngeen sama kër moom defe naa moom ak Ukraine ñoo yemoon ñu jël ay char de combat lu ne dem bloqué sama yoonu kër yëpp samay doom di dund fitna boobu samay waa kër di dund fitna boobu ci loo xam ne ñoom ñoo ko imposé Sénégal yëpp teg ci bët àdduna yëpp teg ci bët ba ñu demee ba forcé ma ne léegi da ngay ñëw ñu déglu la juge ba ne day def mandat de dépôt mandat de dépôt ne day def euh, contrôle judiciaire ci loo xam ne amul dara lu ko justifié wul man dew ma fenn man dama am yéene nekk président deux mille vingt quatre dew ma fenn ci àdduna amul ku ma mun a génn ci réew tey su ñu yëkkati woon sama contrôle judiciaire taxul ma tukki ndax sama sécurité man nekkul ci tukki tey jii sama sécurité biir Sénégal la ne kon amul woon dara lu justifié ñu def seen mesure boobu ñu ne leen naam dinañ ko nangu ñu ne ma dossier bi waroo cee wax. waroo cee yëy yàbbi waroo génn réew mi waroo waroo man leen d'accord waaye boobu ba léegi lan la ñu gis ci dossier bi may fàttali sénégalais yi nii gis nga dossier bi yéen askan wi yéen a ko réglé ndax dossier bi le 8 mars lañ ko perte ñoom définitivement ma fàttali li woon seen stratégie mooy tuumaal Ousmane sonk gaawantu jàpp ko yóbbu ko rëbës ne. matière criminelle la ñu nekk juge mun na jël dix ans di def instruction bu boobaa yow fàtte nañ la rëbës loolu moo newoon plan bi du leneen bi ñu échecgee ci loolu lañu ñu xam ni dossier bi ñàkk nañ ko moo tax ñoom sawaruñu pour dossier bi ñu traité ko su ma leen toppoon ci la ñu bëgg ñoom dossier bi fële lañ koy teg naan le juge matière criminelle le juge mun na jël tout son temps ci diggante bi tere nañ ma ma wax man ci jamono jooju bis bu ne soo ubbee tele ñi ngi bàyyi ay sénégalais di génn di wax di saaga di xaste di dugg ci joxe ay détails yu leen neex déggoo juge wax ci su doon ay sénégalais lambda rek sax waaye ñi ma ko seqal seen bopp muy parti civile bi ak seen avocat ñaata conférence ak fi def lu ne ñu wax ko ci dossier bi ana juge ana baro ndax samay avocat bi ñu jógee ne dañuy wax d'abord dossier 94 milliards baro moo leen njëkk a tere ne leen du ngeen wax bu ngeen waxee ñu def procédure disciplinaire ba tey jii samay avocat saa suñu jugee pour wax baro moo leen koy tere ana baro jamono jooju semaine bu nekk avocat adverse bi génn def conférence de presse est-ce que mus ngeen dégg kenn ci samay avo sama pool d'avocat génn wax ci dossier bi télé yi ne ak rajo yi mel ni tuleeg male ku nekk di wax ana juge bi tere ne kenn du wax ci dossier bi ñu bëgg a téye loolu nag juge wala justice warul nekk prolongation wu stratégie politique gu nguur gi gis nga nguur gi ñemewuñu dossier bi ndax xam nañ li ñu téye ñun ci dossier bi seen stratégie mooy bu ko kenn traité nañ ko bàyyi noonu Sonko tënk nañ ko mënul def dara bu ko defee nag ñuy wër di wax di xaste di saaga lu nañu koy def moo tax ma ne leen nag benn instant dootu ma leen nangut loolu looloo indi sama sortie bi ma def temps yële sorti bi nag dama cee wax lu leer dama fàttali sénégalais yi yenn mbir bu ma ci jógee dama ne maa ngi yor sama passeport man maa bëggut a tukki ndax intéressé wu ma ñi ma xam ñëpp depuis tax xam nañ ni man su may tukki sax dañ may forcer farata moo mën a tax ma tukki waaye man duma koo xam ne damaa sopp di wër di tukki ñaareel bi may leen signéetuma ndax niñ ma bëgg këll këlle juge bi ñaata yoon la ko samay samay avocat bind ay bataaxal benn yoon la ci mus a tontu mooy gannaaw bi ma génnee ba def sama sorti boobu la doog a tontu yeneen yëpp musuñ cee tontu te loolu nañ ci dellu si bu ñu duggee ci biir dossier bi looloo indi woon wax ji bi ma koy wax nag dama am ma ci jublu woon mbokk yi la ma ci jublu woon mooy dossier bi il faut ñu traité ko tout de suite et maintenant dossier bi du lu ñuy téye dossier bi du bu compliqué boo xam da nga war a dem jëli ay témoins yu nekk bitim réew ak nangam nangam déedéet. dafa jot ñu traité dossier bi vidé ko ñu xam fuñ jëm ñoom nag ñoo ñemewut dossier bi ndax nekk ci rajo yi di wax ak li xew ci biir bokkul de am na lu bëri loo xam ne duma ko wax fii waaye buñ ci tollee di ngeen xam li ne ci dossier bi moo tax ñemewuñ ko la may ñaan askan bi mooy bu kenn nangooti ñu téye dossier bi di ko laam-laamee naan tey suba instruction bi instruction bi jeex na daanaka donc est-ce que justice waroon na toog xaar ba woon ma génn taper sur la table pour ñuy doog yëngatu ndax diggante bi ma génnee ak léegi ci lu matul ci lu mat fukki fan juge bi déglu nañu ñu mu war a déglu yëpp daanaka mel man maa ci des su ma génnul loon su ma waxutoon du leen woo il a fallu ma génn taper sur la table woo nañu beneen accusé bi woo nañu témoin auditionné nañu ñëpp ba mu des man kon ça veut dire que mënoon nañ ko def bu yàgg man li ma bëggoon am naa ko mooy dossier bi na yëngatu semaine passée bi ma samay avocat woowee ne ma jokkoon nañu ak juge bi wax nañu ak moom nee na nañu waxtaan pour xool kañ la ñuy def solution dama leen ne du ñu génn semaine bi ndax maa ngi ndakaaru lundi laa war a dellu Casamance waaye mën naa sax annuler sama billet bugguma ñu génn semaine bi proposer leen mardi mooy mardi démb bi su ma sañoon na ma déglu mardi boobu ñu avancé dem nañu ba ci biir demewut noonu te li ko li ko tee am ci juge ba la jóge waaye bi ñu demaatee ba ci biir ma ne samay avocat proposé naa leen semaine bii di ñëw le 6 ñu def audition bi ba tey amaguñ ci réponse waaye li am ba des mooy gis nañ ni juge bi ma ngay def léegi li mu war a def ci dossier bi ma ngay jokkoog suñuy avocat gise nañu benn yoon ba waxtaan ba pare am na lu ñu tënk ci lu ñu war a doxal jàpp naa ni man la ma bëggoon ci dossier bi am naa ko kon dégg naa seeni mbébét nit wooy na ma fu ne kilifa gune woo na ma nit ñu bari woo nañ ma doonte xam nañu lu waral sama taxawaay dégg naa seen mbébét boole kook li ma bëggoon man am naa ko mooy tey dossier bi mënatul yàgg ci loxo juge bi jàpp naa ni sax ci fan yu néew dana ma déglu instruction bi bouclé wu ñu xam fu ñu jëm ak dossier bi kon jàpp naa ni amatul une raison pour que acte yi nga xam ne posé waat naa posé woon naa ko ma continuer ko bu ñu defoon safaan wit ma téye fi ma téye rek ndax man bi may posé samay acte dama ko natt nattaat ko xam lu ma ci mën a fekk xam les conséquences parce que noonu la nit di doxalee noonu la kilifa di doxalee lu ñu def rek pare naa ci ba noppi waaye comme li ma ci bëggoon am naa ko bu soobee yàlla semaine prochaine bu ma nee cëpp ndakaaru incha allah la ma ci war a def yëpp naa ko def ndax ñun fe wàññi institution judiciaire taxu ñoo jóg amuñu problème ak institution am ñu problème ak magistrat waaye bu amee lenn ci magistrat yoo xam ne dañuy doxalee méngawul ni ñu war a doxalee magistrat nag nit la dong magistrat jox nañ ko cër torop waaye nit kese la comme man comme yow comme keneen day juum day tooñ day def naka su dul noonu donc su loolu amee dafay baax ñu ne ko ah attention ku bëgg ku respecter dëgg nag institution judiciaire noonu ngay def ndax loolu mooy dimbale justice muy xoolaat boppam di remettre boppam en may wax nag ni bu dee woo nañ ñu te gëm naa ni ci bës yu gàtt la yéen samay soppe yéen askan wi jarul kenn di génn ndax audition kese la jarul kenn di génn naan maa ngi dem tribunal maa ngi def lii maa ngi def lii dossier ba lañ ca yor yor nañ ko ba noppi dossier bi dafa vide amul dara wax naa leen ko keroog ilaa yow mi diin gisuma ku mën a tëj Ousmane sonk ci dossier bi ni mel amul wër di xasteeg saaga moo fi des waaye dara amu ci dossier bi kon jarut di génn jarut di di dem tribunal waaye rester mobiliser mooy fi ngeen teg seen tànk teg leen ko foofu te déglu leen parce que fii la ñu ngi doxal yoon ñu doxal ñoom ci yoon waaye buñ ñu buggee jaay doole ci lu dul dëgg li ma waxoon la résistance est un droit buñ la buggee jaay lu dul doole ci lu dul dëgg constitution moo la may nga résister bu boobaa la ñu war a wax ak yéen dinañ ko wax buñ ci tolloo kon loolu moo ne woon kàddu yu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen wax ni soyez heureux vivez bu leen kenn stressé bu leen kenn teg leen warul teg àdduna bi du dara te koo fi gis ak maqaamam nu mu toll nit dong la nit njaay boo xam ne day dund bu àppam jeexee mu dem bu leen ragal kenn kuy nit ni yéen loolu yab yàlla la waaye bu leen tooñ kenn bu leen njëkk a dóor waaye am ngeen sañ-sañ buñ leen dooree bëgg leen jaay doole ngeen defaan seen bopp ñu leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu